bon ci bésub Saint-Valentin googee maa ngi ñaan yàlla yokk ñu sutura yi gën di nobante you know en tout cas je tenais à te dire tout mon cœur daal you na la yàlla defal xéewal yàlla na la yàlla may lépp lu nga bëgg xam naa ne di nga atteindre say objectifs incha allah you are a Yalabal She's the only